imaam bi de ñëw na ci wax na li waral tabaski mooy bi yonent yàlla Ibrahima bëggoon euh, jël doomam euh, daal di ko tabaskee yàlla daal di ko wollu ni ko noon tey nit la ñuy tabaskee moo tax ba tey ñëpp dañuy kontaan xam naa yéen a ma ciy gën a kontaan pour tabaskee xar wala leneen. ci ni ko lislaam waxee. mais li euh, imaam bi lim ba na insisté mooy nit ñi dellu ci yàlla. di ballante ak. ndax boo xoolee àddina bi fi mu nekk nii feebar boobu ñuy wax euh, coronavirus dafa dafa lëmbe àddina bi lëmbe na réew mi euh, am na sax ñoo xam ne dañ koy politiquer naan diw moo fi indi feebar bi diw moo fi indi feebar loolu nag foog naa ne euh, espèce na fekk la parce que feebar bi ci àddina bi yëpp la am Sénégal sax war nañ xaw a sant yàlla parce que bi feebar bi xawee ñëw ne woon nañ dina gën a métti fii mais yàlla mu ñuy iir donc li ñaan askan bi mooy ñu booloo ànd ñoom ñëpp pour xeex li nga xam ne mooy feebar bi feebar bi nag ni ñu koy xeexee ñëpp xam nañ ko loo xam ne amul garab da ngay fàdd da ngay da ngay jël say précaution da ngay jël sa prévention maanaam euh, moytu rassemblement yi ngénte yeeg dëj yeeg mariage yi di sol masque di raxas sa loxo je crois que loolu yomb na nit ñi nag dañ war a booloo euh, pour xeex yëfi mais di ko jiinaante ay nit feebar bi nit indiwu nit moo koy transporter mais nit indiwu ko booy xool-xool man dama foog na xëy na ci yàlla la jógee yàlla moo ñu nattu donc nañ dellu ci yàlla ñaan feebar bi jóge fi ñu booloo ànd raxas xol yi je crois que loolu moo ñu muccal ci mu ñu muccal ci bi. opposition bi seen droit la ah droit nit la ak bu fekkee ne jël nañ décision wala assemblée jël voté benn loi boo xam ne ñoom neexu leen mun nañ saisir conseil constitutionnel pour contester ko. bu boobaa nag conseil constitutionnel mooy def seen liggéey évidemment xam naa li nga bëgg wax mooy à chaque fois rek ñu voté loi opposition daal di saisir conseil constitutionnel loolu tamit du yoon parce que am na loi yoo xam ne bu ñu ko watee pour askan bee tax ñu koy watee mais à chaque fois boo d' accordul rek lépp lu ñëw rek nga ne d' accord wul loolu xaruñ ko ci opposition ñun li ñu bëgg mooy opposition boo xam ne suñu opposition républicaine di seet di ràññee. loo xam ne pour njëriñu réew mi ñu ànd ci loo xam ne nag xam nañ ne yaakaar nañ ne du njëriñu réew mi bu leen neexee ñu contester dem saisir conseil constitutionnel loolu kenn ayiwu ko du tax réew mi di doxal du tere aussi président de la République nga xam ne moom la askan wi fal di dérouler comme ni nga ko waxee di doxal réew mi ni mu ko xamee ni ko constitution maye nga xam ne c'est lui qui détermine la politique de la nation